dama ne na ci dugg na ci ñaari yoon terew ko bi wërsëgam ñëwee mu nekk président la République nekkul booy opposé da nga war a taxaw di dóor xeer di sànni lu ñu def nga nekk nekk un ministre total du loolu su Bamba nekkee un opposant reconnaître Macky Sall ay qualité mais loolu réew mu baax noonu lay doxee yaa gën a nul ñëpp yow yow yaa gën a nul ñëpp yaa gën a nul place de l'opposition. Malal un opposant. ça il faut être. Malal waaw d'accord non Malal s'il te plaît. non bàyyi naa ko respecté naa man respecté naa Sénégalais. justement loolu laa wax Malal man damaa nekk ministre éduqué. Malal dama respecté Sénégalais. oui Malal waaw. Malal c'est moi qui appelle. oui ma c'est moi. ma nekk mais munoo nekk mais. d'accord d'accord bàyyi mas la bàyyi mas la non non non Malal ne t'énerve pas. kii mënu fi fi nekk. nit ñi fal ko mu taxaw ne un opposant mën na nekk dans le dans le gouvernement un opposant c'est quelqu'un qui s'oppose. mais mais mais mais mais il a donné quand même mais il y a pas de contradiction à l'opposition. mais Malal. mais oui ma la wala bien. mais oui ma arrête. ma ne yeneen gouvernement yi nga xamante ne ñu far fii ak ñu far fee la ñu boole ci liggéey boobu. Malal c'est énervé pourquoi pas. non Malal c'est énervé mais il a mais li mu wax mu ngi ko oui. mais parce que ça oui. non dans ce gouvernement tout ce que je te demande. oui ma Malal a raison. parce que Bamba may ma rek. Bamba solidarité gouvernementale. Bamba mënoo nekk un opposant au pouvoir. Bamba s'il te plaît dafa am lu ma. il y a des exemples un peu partout dans le monde non non c'est ça il y a des exemples un peu partout dans le monde dans des pays où ay opposants dañoo ñëw di jël ay postes de responsabilité gis na ko Sénégal gis na ko feneen. ok su fekkente ne loolu mooy nul kon je crois que dina ko wax keneen ku dul man. jéggal naa la parce que du ma yow. voilà merci di def ay écart de langage yoo xam ne dafay jëm wax ak sénégalais yi salle de classe Malal s'il te plaît je te parle depuis sànq quand salle de classe moi Malal c'est je ne suis pas dans une salle de classe on est Malal Malal s'il te plaît fii lañ koy régler fii la xewee fii lañ koy régler maa leen ah. ñaan ngeen déglu ah. man maa leen di woo ok mu Ndiaye Cissé yow comme yow Malal c'est pour ça que je demande de respecter les gens boo leen respecté wul respecté ma man je t'envoie les sujets comme je les appelle s'il te